rek Iba Ka nag sa fil bi rës day def bu da am gàllaaj du nombre douze bopp muy takk donc xëy na sax dama ne ay cat cat moo koy téye Iba Ka Iba Ka mais wóor na yàlla kii nee naa lu mu bëgg dañ ci war sonn lu mu dugg ñu dugg ci man maa lii parce que dama bëgg yóbbu mbër yi ñu ñëw dafa suñu carrière war a toog taxawal ko lu rëy loo ma def ba international dañ koy xam. mais sa combat Ada Fass luñ ci mën a xaar. non oh, ak Ada. jom bëri fula fay dëgg ma la. combat ma bëgg la bëgg ko sama bopp. donc tey combat dama ko bëgg a gérer dama yàgg si yoon bi bi. petit contre grand la de wala grand contre petit. Oh, loolu amul si làmb. Ah. loolu amul si làmb. loo signé rek yéen a tolloo. bi 18 laa sam 18 ans wax naa la ko nag. waaw voilà da taawu ko. taawu ko fii damay ministre des sports ko mu toog wax projet am yéen dañu ko war a financer projet bu dara parce que li ma def ci dañu war a bàyyi yàlla na yéex lool ay 150 ans. mais nañu la war a bàyyi bu ñu jógee fi ñu koy avancé yéen dafa des ci làmb jot ñu toog wax ak moom yaa ngi dégg ministre des sports recevoir ko wax ak mu kon parce que parce que qualité dafa set parce que intelligence lay